નારા જખલ નારા જખલ કોલ મને ત્યાં ngi fi rek waaw ça alhamdulilah madame Ba Adja Aïda Touré lañ koy wax madam Ba Adja ay Touré artisan waaw hmm. man damay jaay produit artisan produit artisanal laay jaay damay jaay ay divers daal di defar de pax aussi yëpp ci aar bi la bokk ñaata année fu mu 30 ans wala 35 ans macha allah waaw foire ren bi moom macha allah problème bi rek mooy état eh, bi jàppale ñu parce que dafa cher client amul am nañ volontaire bi nag engagé nañ ndax dañoo bokk ci membre Bay Sa War ñu war a nag suñu dëkk comme dañuy dem dañuy dem Asie dem Europe dem fu nekk macha allah. kon war nañ mën a ñëw suñu dëkk nag bu tëggee comme ñun ñoo ko organisé ñu war see jàpp état nag gës suñu jàppale ñu macha allah loolu lañ bëgg. waa waa mbirum foire moo demee noonu foire moom ay la rek da ngay ku nekk génnu ci am koo xam ne jaay na ba xolam sedd même foire internationale bu bu aussi noonu la mel dañuy dem Japon Corée fu ne dañ fay dem foire mais. benn la daal kii day doxal kii du doxal mais li ñuy gën mooy bu ñu dem rek tase africain seen état da leen di jàppale moo tax ñu ñu si gën a génn daal muy Kenya muy Côte d'Ivoire muy Togo fu ñu mën a dem daal muy Guinée bii rek seen état leen def fayal stand defal leen lu nekk ñun nag loolu lañu amul ñu ngi yaakaar nag si président bu bees bi Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre am Sonko ñu jàppale artisan yi gestu leen bu baax a baax kuy artisan la boo ma déggee ma di nga xam ne man mii ci yaayu artisan yi laa bokk macha allah. waa laajte bi ëpp nag parce que dañoo nekk si crise si crise mondiale la dañoo am jom rek di góorgóorlu ndax comme nit ñi dañ jógee yeneen réew di ñëw kon ñun tam war nañoo ñafe pour toog suñu réew ñun tam wane li ñu am. ni ñuy demee extérieur noonu lay war a toogee suñu réew ñun tam buñ tëggee comme ñun ñoo ko moom ànd bés ba ñoo ko moom kon il faut ñu jàpp si bu baax a baax comme ñu ni neen la daal. ay desande de lii ay vaisselle ay machine yi defar yi wal euh, ñebbe def viande haché di ko wal di wal café am nañ ay rideau bak si ginnaaw maa koy defar rideau tam maa koy defar ma koy indi su ma ñëwee may dagg ñëw monter ku ne xam na ma si liggéey bi daal macha allah et dañuy jaay karité euh, euh, kii wu Sénégal dañ koy def maanaam buy yéeg euh, ñebbe yeeg yëpp Sénégal dañ koy defar fii lañ koy liggéeyee fii la amee fii lañ koy liggéey fii lañ koy jaayee dañ koy yóbbu aussi si biti mais bu si si la ñuy gën a gis suñu bopp ko fii parce que tam il faut nit ñi ñëw di jënd jàppale ñu jàppale ànd bay sa waar mais bopp bi moom mooy état il faut mu gëstu defal ñu lu ñu kenn defulu woon. waaw. waaw mbasa mbasa waaw waaw. non Famira sama doom la xam nga dama demoon benn foire bu amoon Corée ma des dend ak benn Coréen mu jënd benn affaire bu seer ñu ne ko dafa seer mu ne ko kii di jaay laa bëgg moo tax ma jënd. wallaay laxasi moom moo tax ma ñëw ci paar bi stand yi cher na jaayoo ko fi mais liñ naan dangay jàpp ci combat bi il faut ma jàpp si combat bi Dubaay la ñu yàlla boole woon 2000 xaw ma lan ñu bokk benn foire ñu dend mu nekk sama doom nangul ma bëggal ma boppam di may sama jëkkër xaalis di ko sees di ko defalu nekk damaa ñëw pour jàpp ci combat bi mais man ku ne xam na ne fii du sama place si foire bi waaye nag il faut ñu jàpp si xale bu baax la ci man xale bu yaru ci man jox na ma cër respecté na ma waaw loolu moom am na man nag li tax ma gën koo jàpp mooy daf may indil client xam nga man damaa bëgg xaalis man maa yaam ju bëgg xaalis dama indi ku bëgg di la taay da diw daa bëgg di taay da kii baag descendre lii taay da rek ci lay nekk bu solee dara wala mu def da nga ne ko li rafet na sax mu ne ma taay daa ma ko jaay dama koy xollee rek ndeysaan comme na Fall RTV noonu la meloon si man moo tax bu defee yenn es kii rek damay xool ci rek Zeynab Fall yàlla na ko yàlla yërëm noonu doon def man Fabira Zeynab rek la may jox ci man laa wax de. waruma duggoon ah? askan yi maa ngi leen di wax nañ ñëw seet si ma ñëw suma boutique bi def doore am naa rideau nouveau am naa ay coussin am naa dessin de lit 24 heures yoo xam ne un an garanti mixeur itam un an garantie rido yi mom bu ñëwé xamné rido yi du rido yi HLM du lu doy fenn li doy madame ba rek la di def waka monument askan na nañ ñëw surtout état na ñëw jappalé ma sha allah nga sama tante bi mo nek moom mu nek tante bu baax nek sama wujju taxi sama wujju la na sa du sama tante ndax ñoo bokku jëkkër ma nangu jëkkëram <laughs> waaw merci salam salaamaaleykum wa VFtv di suñu ay partenaire Euh, depuis 2016 euh, euh, du Salier de passage ma sœur vraiment une femme extraordinaire Tu suis la déggee ma plus que ça en 2016 événement du Sénégal je suis la fait fekk créé bi sax VFtv suis man aussi ma suis ba rek ma ci parce que àdduna moom boo dindee kóllëre rek ci sa dund dara desu fa moo tax tey nag ma ñëw fii seet si sama yaay ji di taa Aïda Touré nekk sama xarit nag nekk sama kal comme dama am benn temps bu ndaw ci ñu ngi ci jumaa ma ne xaaral ma ñëw seet si ko toog waxtaan ak moom saafoon teg moom xool aussi produit yi nga xam ne moom la indi mu nekk une référence ci wàllum artisanat ak wàllum export parce que dafay génnee suñu ay produits fi yi nga xamné mom moom koy liggéey di créer de l'emploi diko yobbu à travers les expos universels ñu tassé nak fune dem ak suñu ay propres moyens pour di promouvoir le made in Sénégal ba tay la plateforme Bay Sawar juddu ci mom mu nekk ci membres yi ci ñëk nekk suñu ay yaay ma ci cité ay maire Dado cham maire Soda Fall maire Mati Fall ay Djili Mbow ñoom ñëpp vraiment ñu nekk ay ay ay jàmbaaru artisanat au Sénégal ñu nag ñu nekk ay ndaw ñu ne non dañuy jël suñu ay yaay ak suñu nijaay ak suñu mag yi boole leen ñun ndaw yi ñi topp seen ginnaaw pour mën a liggéey moo tax tey su ma ñëwee ci biir place yàquma ko dafa war xëy na jot bi moo am rek ak autorité yi ñëw may ànd ak ñoom ak travaux yi nga xam ne ñu ngi koy def à travers les b 2 ak rencontres yi loolu moo tax euh, mais su ma sañoon doon naa ñëw buy yàgg pour waxtaan ak moom di leen wax ne rek euh, elle de belles choses euh, mi ngi ci vraiment aar bi di liggéey ay saak yu rafet ay robb ay chemise ak yeneen ak yeneen di woo ñëpp nag pour ñu ñëw vraiment c'est ce ko ci standam bi waaye dafay wone aussi commerce parce que day def commerce carrément ndax tey boo demee foire quelque part nga jaay et aussi nga gis la nga ne ko day import export te moom ci la nekk ci loolu mu machine nga wal lépp luy produit agroalimentaire mun nga ko wal. boo bëggee defar ay jus mun nga jël suñu ay fruits ak légumes yi defar ci ay jus ñu koy wooyee 3 ans yoré ay boolu 24 heures yoré ay bale ya nga xamné tay tey euh, solide la vraiment lolu lepp mu dugg ci xéetu rek import export donc diko féliciter diko wax né mu dal ak jam ndax FIPA bi koy njëkk tambali tàmbali maak la won. ba tey delluwuñu ginnaaw kon sante mais di len encourager aussi ndax tay n'y ngi ci ñu ngi def pas à pas foire internationale des produits africains mi ngi wuyu turam ndax le rôle xolé configuration rôle aussi que ne y a plus de 30 pays rennes qui sont présents ici da ngay sante ne xëj bu nekkoon ma ngay ram yaakaar naa ne léegi jóg taxaw te di ñaan suñu borom rek mu tek ci loxom ba nga dina mëna dox duggé école gaddu saagam di jàngi di tari loolu la ñuy ñaan yalla te pour loolu am nak il faut état bi duggal ci loxom gis nañ fi ren pragmatisme état du Sénégal ministre bi nga xam mom lañu denk famille ak solidarité ñëw na fi accompagner ay femmes pour ñu mëna participer ci foire malgré délai bu ndaw bi mais dañoo wone pragmatisme wone ne tey askan bi moo leen fi tax a toog te loolu c'est à saluer ñu gis fi présence su DG COSEC mu accompagner plus de trente artisans ñu ñëw exposé fi te wax dëgg yàlla ñoom ñëpp kontaan yamuñu ci loolu dañoo déplacé wu ñëw xool li ñuy liggéey chambre de commerce moom dañ koy gërëm di ko sant aussi ndax li rëy lim fi def lancement ba fa lañ ko defee tey nii gis nga ay travaux yu ñu def ay kilifa yu mag def ko am ci fii ay euh, ay formation ak waa di leen féliciter ngeen gis délégation yi aussi loolu yëpp c'est à saluer kon vraiment foire bi daal xëñ na bu ma tàmbalee di wax dina am yu ma bàyyi mais xam naa comme dañuy xuus ndànk dem ci suñu yeneen éléments yi

ay ma dooree ko pël a sonn maa ngi ci stand Max Création vision 2024 membre de la plateforme Paysawaar jóge ci gor ma jéem fi nag nemmeeku ko xool nu mu toogee en sama maam mais aussi nemmeeku ko waxtaan ak xool nan la gisee foire tey ñun suñu njaboot yi ñu rek dañ di nemmeeku bàyyi leen xel exposant yi tamit ñu fas yéene kenn ku nekk xool nan la ñu toogee dee dafa am yu ñu war réagissé ñu réagissé ko bu dee dafa war a am yu nga xam ne dañ ko war a amélioré seen lekk gën a neex gën a ñoŋ gën ñu am fi nga xam ne moo weesu seen doon moo tax ñuy dugg ci stand yi benn par benn ñu waxtaan ak ñoom daa am tey suma ma sañoon dinaa waxtaan ak ma duggee nag kontaan naa lool ndax gis naa fi ay produits ya nga xam ne tey euh, buñ ko. defaraatee tout direct. Inch'Allah, allah inchallah on exporter à l'échelle internationale parce que une vision moi, créer un champion de l'export à travers les formations mais aussi nous avons une formation yi am à travers le peu d'expérience yor orienté leen informé leen en temps réel encadré leen ci li nga xam ne moom la loolu nag ma gis fi ay tableau yu mucc ayib tableau ya nga xam ne seen loxo lañ ko defaree ak seen intelligence ndax dañuy toog xalaat ma gis fi ay caq ya nga xam ne ñoom ñoo ko nas. tubaab yi bëgg ko lool macha allah ba léegi rek moo wax leen benn anecdote ay sama ay yenn partenaires yi ndeysaan ñibbi nañu démb dama ñëw fekk leen ci seen place max ma daal di gis ko en l'action rek ma kontaan ndax loolu la xaar ci artisan bu nit ñëwee ñu teeru ko jàppale ko mais aussi fexe ba téye ko balaa muy dem mu jënd ndax jaay moo la te loolu kenn mënu la ko defal pour ñun mën joxe cadre bi mën nañ leen teg ci condition yu baax waaye seen promotion wu article naa ne nit ki kooku war a mën a defal bopp te maa ngi ñaanal ñëpp képp ku fi exposé rek yàlla na nga jàpp képp ku fi ñëw yàlla na yàlla jàppale sàmm la yiir la aar la lépp loo fi doon séntu rek yàlla defal la ko ci barke sa kanam ñu sa wet parce que yéene ànd àndu ndaw le kenn du gis sa morom doo gis rek incha